أه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأسنى خديمه أما بعد فيا أيها المؤمنون إن التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسنها مما ندب إليه الحق سبحانه في مواقع مختلفة من كريم كتابه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 واحتي حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما توك اك لن صحابه يي ني ندخ دوما لن واخ كيما غنا بغ ين يين يين جوليت نيب ين سما خيت ويب نيما تي غنا جاغي الله يوم القيامة تي جتاي بامي توك واخ كو بامتو كو بامي نيات يون صحابه يي توغون اك موم نكو اها كاي يو يونتو يالله بي سخلو نانيو كو موني ñoña ñoy ñi gëna rafet ay jikko ci yenn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 Nang nga fexe ba nanga ngay wax ak moom wax ju nooy wax ju teey wax ju rafet wax ju yaru ndax loolu mandar la ci ne nit ki ki ki nit ko am xel la kon mooy du nit kuy wax waxinu ñagas ak képp ku mi waxal wala waxinu dëgëranteeg nit ñi ca na ngay waxe loolu firiwut foor firiwut itam kattan firiwut dole waaye ak doye di firi akuk lompañ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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد عباد الله ونحن إذ نعيش في زمن أكبر أزمة نواجهها فيه هي الأزمة الأخلاقية التي صارت معضلة حيث لا عفو ولا صفح ولا بدل ولا إعطاء ولا صلة ولا نصح ولا إحسان ولا إصلاح ولا رحمة ولا توقير ولا اعتذار ولا إعذار استحكمت فينا الأنانية فاستفحلت واعتقد أكثر الناس خطأ أن التدين محصور في صلاة وصوم وذكر والله تعالى يقول خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقولوا للناس حسنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب